maire bi leen nag di Ahmed Aïdara gis na la daal fan yii léegi ñu yeesu am na koo xamante ni mu ngi ci Facebook ak benn page boo xam ne kere na ko sax su ne muy dal seen kaw de façon injuste moom ak ay jegeñaaleem yu muy liggéey toog boobee nag gannaaw bu ñu ko démasqué ak ay investigation yoo xam ne mëne nañu ko ci la ñii di jege jegeñaale maire bi di Ahmed Aïdara décidé porter plainte ci fàttali sax waa jooju nga xamante ni moom lañ démasqué sur Facebook mu def lu mel du kenn ku dul un des proche collaborateur maire bi di Ahmed Aidara loolu nag waral sax ba maire bi di Ahmed Aidara am lu ko métti lool gannaaw ba mu demee ba nemmeeku ne daal ci fan yi ñu génn moom ay résolution yoo xam ne da koy jël ak équipe am fële ca mairie bu Guédiawaye daal nañ koy fësal am na koo xamante ni mu ngi ci Facebook saa su ne muy relayer information yooyu ak un kont di ci boole sax di dal seeni kaw ak kàddu yoo xamante ni kàddu yu ñagas lay doon na. waaw gannaaw nag naxari goo xamante ni naxari na leen lool ci waa yi dal seen kaw njiit seen maire nii di ay collaborateur u maire bu Guédiawaye décidé nag def ay investigation jël problème bi toppatoo ko seen bopp ba mu sës ci noonu ci dañu def ay investigation ci page boobu nga xamante ni sax moo doon génnee xibaar yu ñu mel loolu nag jëlal na leen temps bu yàgg waaye ñu topp ci rek bañ a bàyyi ci ni ñu vérifier compte boobu topp ko topp ko ci leen dem ba dal ci benn numéro de téléphone numéro boobee sax ba ñu ko toppee di ci gëstu di ci defee investigation ci ñu dem ba teg loxo ki nga xamante ni moo doon jëf jëf yu ñu mel. waaye nag ci gën a métti mooy ba ñu demee ba gis waaja dañoo dem ba nemmeeku ne kii daal ab personne la ba nga xamante ni saa su ñuy defee réunion mu ngi toog lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko fa mu daal di ci teg no dugg ci noppam mu daal di ci teg bëtam. maanaam ab jege jegeñaale la woon ci maire bi di ay dara gannaaw tegub loxo boobu nag li nga xamante ni moom la maire bi di Ahmed Aidara njëkk a def moo ki jegeñaale mooy laaj ki nga xamante ni mooy collaborateur am boobu nekkoon ci gannaaw compte boobee di def ñu mel lan moo doon jubluwaayam quelles sont été ses motivations. moom mi ne nag gannaaw laaj boobu ñu laaj ko ko li mu xamal maire wi di Ahmed dara rek mooy li doon jubluwaayam ci ñu mel mooy fàttali maire wi Géejawaay jamono yi nga xamante ni mbir maa ngi métti lool tar lool naaju di tàng amul kër gu ñu laaxatu ñan ñoo nekkoon ci ginnaawam di ko jàppale ba dara dul dara. métti gu mu leen métti nag ci agissement yi nga xamante ni cette personne mu ngi ko doon def ci seen ndodd ñii di proche maire bii di Ahmed dara ay collaborateur am décidé ne dañuy dem fële ca dig porté fa plainte waa ji leen ndax li mu doon def tegul ko fenn du dëgg du yoon waaye nag dafa mel ni loole la leen maire bi di ay dara bañal ndax moom waxu plainte boobee waxu ci dara li mu leen wax rek mooy moom pare na pour baal waa ji ñu mel ndax amaana dafa juum xëy na ni mu doon xeexee moo dul xeex waaye